asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internet yu seen football TV nuyu naa leen bu baax a baax ziar leen tey dañuy dem fële ca France wax benn match choc bu fa amee woon Paris bu Idrissa Gana Gueye moo doon jàmmaarloo ak Monaco bu Krépin jaata ak Sofiane Diop. après ñu def exploit fekki Camp Nou fële ca Barcelone dóor ko 4-1 Paris bu Idrissa Gana Gueye match bi dañ ko soxle woon ndax dañuy xeex pour mën a jël sampena bi. mu nekk match bu xamante ne entraîneur bu Paris Saint-Germain dafa jël suñu milieu terrain bi Idrissa Gana Gueye teg ko titulaire à côté de Paredes. côté Monaco Krépin Diatta dañ ko teg ci banc bi Sofiane Diop dafa titulaire mu nekk match bu xamante ne Monaco dafa jël jël bu njëkk Paris Saint-Germain si bii bu Sofiane Diop si tête bu Nice Navas mënu ci dara. Paris doon na def benn pressing bu kawe Icardi ak Mbappé ak Kean teewul taxawaay bi Monaco baax na trop. un entraîneur Kovac dispositif tactique bu baax la andi Parc des Princes deuxième mi-temps Paris Bayoul, tient possession bi waaye da leen manqué ay occasion yu net pour ñu mën a dugal but seen milieu terrain sax moom mu ngi def erreur muy Herrera seen si benn bal bu xamante ne da ko waroon a dégager presque mën nañ ne dafa paas Maripane défenseur bu Monaco Gessimbal ñu 2-0 pour ñu doon wax ni Sofiane Diop xëy na côté physique war na si liggéey gis nañ ne progressé na si bu baax baax ndax doon na daw fu nekk di défendre Gana Gueye nag bu fekkee am na lu ñu ko mën a waxal ci match bi mooy jëlul risque muy passe court jeu simple bi ñu ko xamee loolu la gën a wane alors que équipe boobu ay bii la soxla woon ba tax seen entraîneur Pochettino génne Idrissa Gana Gueye ak Herrera dugal dugal Rafinha ak Verratti teewul taxawaay bi Monaco baax na lool andi nañu solidarité te boo déggee kàddu yu de bi mu jeexee ci micro yu Canal Plus wax na ne seen entraîneur waxoon na leen Paris ku maytu mu sonn après seen match Ligue des Champions ba tax boo leen respecté taxawaay bi mën ngeen def exploit am ndam Sofiane Diop dafa mujjee génn mën nañ ne temps bi liste de sax bëriwul noonu pas tellement entraîneur am jël ko kott ko kontaan ci moom trop ay coéquipier félicité que suñu gaynde bi Krépin Diatta mujjul joué match bi mu nekk ndam bu am solo. li ko waral bokk na si jamono bi Monaco Paris Saint-Germain deux points donc la ko qui ki jël premier Lille moo am 58 points Lyon moo jël deuxième am 55 Paris Saint-Germain troisième 54. donc mbokk yi ci commentaire yi wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis ndax jàpp ngeen ne Krépin Diatta dina retrouver waat place titulaire wax leen ma si Sofiane Diop ak Idrissa Gana Gueye noonu leen gisee di wax itam ngeen dem suñu compte Instagram seen football TV officiel di abonné baax baax di abonné fii YouTube di cliquer si cloche boobu ngeen di gis vidéo bu ñëw ngeen mën ko seetaan jërëjëf ba beneen sur seen football